salaamaaleykum euh, maa ngi tudd Sada Diba nekk euh, président CDS secretaire général secretaire exécutif bu CDS euh, karnak waaw ñun ñëwee nag ci teewaayu collectif bu des CDS bu district de Kaolack tey nag ñu ñëwoon fii pour accueillir les pèlerins jóge ci île du Saloum bi ñu def ci benn activité boo xam ne dañuy wax ne consultation général te gratuite la. voilà ñu organiser ko tey nag ci île bi di dalal pèlerins yu jóge ci île du Saloum bi tey ñu leen di consulter di leen di may ay médicament waaw collectif bu CDS bu district de Kaolack ñoo def activité boobu noonu jëmale ko ci askan bi comme comme niñ ko xamee dafa bokk ci suñuy ay rôle muy promotion de la santé dafa bokk ci suñuy rôle pour dalal askan bi askan yi euh, Sénégal pour que lépp lu ñu mën a am accessibilité pour que ñu mun a faju ci jàmm ànd ak wér-gu-yaram ñun nag euh, collectif DCDS du district de Kaolack te ñu ñëwoon fi nag ànd ak euh, suñu médecin chef district ànd ak suñ coordonnateur collectif CDS bu district bi monsieur Ndiaye muy monsieur Mamadou Bakhoum ànd ak bépp secrétaire exécutif bu nekk ci poste de santé les trente postes de santé yu nekk ci euh, district bu Kaolack ñu ñëwoon àndandoor di liggéey loolu noonu waaw lu jëm ci médicaments yi nag médicament yëpp la ñuy may bépp lu ñu la prescrire rek dañ la koy may gratuitement voilà fii nag moom mooy pharmacie bi fële la ñuy defee consultation ngeen jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di leen encourager encore ci mbir mi ñu nekk jërëjëf.